salaamaaleykum yéen a ngi si Guédiawaye info point com tey jii nii ñu ñëw stade Amadou Barry pour fekkee classico bi nga xam ne ñëpp ko doon xaar classico zone 4 donc ñu ngi fii stade Amadou bari classico zone 4 entre l'ASC Djigo ASC boo xam bu mag daaw xam ne ASC bu mag daaw mu jël mu jël compétition bi compétition zonale bi ak ASC Bokk Jom bi nga xam ne kenn du ko présenté di avec ses 21 titres ses 22 titres zonales donc tey ñu ngi fii Guédiawaye mooy ànd

man damaa yàggoon di ma si ba ba arbitre bi suuf suuf suuf je crois que bon dama leen xeeb man damaa wóor li ma yore li ma yore li ma yor moom bal bi da dawee rek je crois que war nañ cee war a mën a jël liggéey nañ ak xale yi ay xale ndaw lañ ñëpp liggéey nañ yëpp par nañ ñu suuf sax ñu sax waaw gis nañ coach bi dafa dafa gàttal wax ni donc nee nañu xaar ba dugg si biir terrain bi donc coach su Bon Match Guédiawaye Infos mu ngi lay wax. bon